jaajëfal alaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara dooro démb bi ma yëkkati jataay bi maa ngi doon introduire benn jataay bu tudd màndarga yi ñuy xame ne alaaji bi ajam gi xajj mabruur la ma tolloon ci bi ujaaj yi agsee màkka ba tawaaf julli bi borom dox safa ak marwa juróom-ñetteelu fan ñu yebal leen muna juróom-ñeenteelu fan ñu dem arafa fukkeelu fan ñu del si muna romb ko sànni jamra dem tawaafi tawaaful ifaada dellu muna benn fan ñaar am ñooñ ba ñett jóge fa tawaaf tàggu kaaba gi ñibbi maanaam li ñu war def lépp def nañ ko xëy na ay waxtaan a ngi ñëw ñu beral ko lu jëm ci organisation bi ndax ni sunum réew di aje yeneen réew yi aje wuñ noonu ni suñum réew di sonne yeneen réew yi sonne wuñu noonu waaw am na coppat gu ci am nag alhamdulilah ndax ren dangay jóge dakaar dem Jidda wala dem Madina boo ñibbi si jóge Jidda ñëw Dakar loolu loolu indi na ci noflaay bu am solo boo xam ne bii bu jëmee kanam ñëpp jël waaye bi ci waxtaan yi di ñëw incha allah danañ ci waxtaan lu jëm ci organisation beeg lu ñu demee ba sun aj gi man fee ëpp noflaay man fee tane <clears throat> waaye daal yi wax yëpp ku ko def tàggu kaaba ga ñibbisi li ñuy séentu ceew ci juróom-ñeenti tom bi ma waxoon démb mooy nga doon ku jub ginnaaw bi nga aje <clears throat> an yastaqima al muslim baada xajjihi waaw nga doon ku jub ginnaaw bi nga aje ba noppi ab alaaji du këpp kees fan yii ña nga ci bitim réew dégg mbiru impo yi waaw coow la ngi ne kur ci mbirum impo yi <coughs> impo ci farata la bokk farata réew yum faratal ci kaw ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew ma ba ci kër yi sax dañ daan laaj impo noo ngi fàttaliku ca Mbàkke léeg-léeg ñu ne imp bi ñëw na ca càlle ba léegi ñu ngi fay imp ni ngay fay imp lañ lay joxe jiw boo jàngee sul xar ne ni ci sóortu Kahf fi da nga xam ne imp am na cim réew njariñ bu doon ci lislaam nag jullit yi dañuy génne azaka ñu ko jullit di joxe imp bu de suñu réew yii nag ñaar yëpp la jullit bii boole laaj ko Mouhamad Tandji Gora yàlla na ko yàlla yokk wér waaye daal jullit bi alaaji bi boo xasee ñëw day nekk ku jub du lekk yëfi jàmbur du këpp kees du tooñ waaw du jalgate du wax ay waxi safaan déedéet du yàq derub jàmbur day nekk insaan mustaqim day jub te feer wu jub noppal na ferrailleur ñi takk feer feer wu jub noppal na ñi takk feer waaw feer wu jub noppal na ñi takk feer ginnaaw ajj bu dee jigéen gi mu sàmm kàddoom sàmm ay cëram changé colom ndax aleyhi salaatu kat jigéen ji ñëwoon di ko nuyu te fayu ko nam solo woon nun la nogay di solo jigéen jëkk ko nuyu woon te fayu ko nam soloo woon ba tax fayu ko nuyoo nu la nogoy di soloo ku ma sa bi la nga sol bu yaraaxee du la fay bu gàttee du la fay bu xattee du la fay maa la ko wax loolu addis la boo xam ne asma bint abubakar moo ko dund te xam ngeen ne asma bint Abubakar bu yonent bi di gàddaay jóge màkk ñëw ma Madina moo doon couvrir événement bi moo doon couvrir événement bi duma nañ ko ca toj cib noppam màtt ko kaata ko waaw lu na def nañ ko ca maanaam risque yi nekk ci journalisme yëpp <laughs> waaw journalisme métier la moo xam ne li ci nekk lépp keroog asma daj na ko moo tax décourage les les les les femmes journalistes waaw décourage les femmes journalistes <laughs> si lu ne daj na ko waaye ba mu ñëwee keroog ca kër ga di nuyu si yonent bi sol ga am lu des mu ne ko asalaamualeykum yonent bi xool fële ci waxin nag ci waxin ndax moom du def noonu waaye daal fayu ko laa bëgg a wax ngeen baal ma mu mu nuyoowaat fayu ko mu nuyoo waat fayu ko Fatima bint Rasul daal di xam ne li tax bàyyam fayu ko mooy solom gi dafa des mu dugal ko néegam jàngal ko jigéen ju jigéen nu muy solo jigéen ju toll ci ati gis baax nu muy solo Fatima defal ko benn formation bu gàtt danaa gis xale yu jigéen ñi ibaadu yi di yëngatu ci lu mel noonu am na solo danga am xaalis am tuyaaba waaw laaj ko mboola ma tudd seen bopp muur say cër faatima daal di koy woo mu ñëw mu defal ko formation waaw formation accélérée ndax bu nuyoo alayhi salaam mu fay ko mu solal ko lu fat yaatu jot ne ko demal nuyoo mu ñëw ne assalaamu aleykum isaan ku baax ka te mën a jàngale ak pédagogue xoola rek xoola rek ni mu ko corriger wax ko eg eh, dafa sa waaye waxu ko loolu Saal Mbay mooy jàngale noonu <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér ñoo koy masawu yonent bi wax ko eg eh, dafa sa déedéet wax ko loolu de wax ko li nga sol baaxul déedéet wax ko xaraam déedéet daf ko bañ a fay rek daf ko bañ a fay yarkat ci njabootam nun lay mel boo ne cell ñu am ne xam ne lu xew asma bi mu dellusee ba ne ko asalaamualeykum alayhi salaam daal di koy fay ba noppi waxtaan ak moom ne ko wa aleykum salaam yaa binta yaa binta abi bakrin yaa binta xalifati ci waxin yaa binta saahibi fil xaar waaleykum salaam wa rahmatullah mu bëgg a toog mu ne ko yaa as mu ne ko asma isaan asma ne ko labbayka mu ne ti ko asma mu ne ko labbayk mu ne ko asma mu ñetti yoon mu ne ko innal mar'ata ida balaqat al mahid fala yura fi jismiha illa hada wa hada ñetti yoon la ko woo woo bu mu ko woo wuyu na ko mu ne ko jigéen bu tollee ci aasu di gis baax ci jigéen bu tollee ci aasu di gis baax imaam Mbaye Niang euh, fële ca aéroport ba woon ca jàkka ja ñu ne woon du àgg imaam Mbaye Niang day wax ni lislaam bu waxee rek ñu xam ne lislaam a wax mu ne ndaxte euh, précoce naag euh, précoce ut ak majeur naag majeur ut ak mu ne bu lislaam waxee rek ñu ne xam ne lislaam a wax déggal li mu wax rek inna al marata ida balagatil mahid âge boo mën a am at yoo mën a am toll ko ci gis sa baax waratuñoo gis ci sa yaram yow jigéen ji lu dul xar kanam bi ak tënk yi lu dul xar kanam bi ak tënk yi keroog ba ni sun sunu yonente ba aleyhi salaatu salaam wala ba keroog ba la fa tàmbalee ba ni asma dugg biir suuf musta sollu gàtt musta lu yaraax musta sollu xat kon ujaaj bi bu jógee màkk tam hmm, jóge ca rasulullah yi est-ce que boo ko nuyoon dana la fay nogay di nii muy solo nii noonu la asama solo nuyoo fayu ko xam naa xëy na bu ma jéggee dana soppeeku ku ma gis ne ma màkk ne ma ana nogay ma ne ko noppee guddi ana nogay lu tax ñëwut ma ne ah bu fekkee nit jigéen ñi ñëwee ngeen bëgg nogay ñëwee ko day man andeeguma ko dooro xaw ma tàntay dooro la xaw ma yaa nogay nu ko ci waxee waaye daal bu fekkee nogay bu demee màkka nii mu mel nii du ci soppi dara kon dem gi lu mu doon jëriñ waaw dem gi lu mu doon jëriñ nogay bu demee màkk ñëw te ku ne ko benn mu la fukk ku ne ko coy mu ne la gel waaw hmm? noo fu mu nekk doq gaa ngi ci biteeg nopp ya waaw a baax na ala kulli xaal tomb bi ci njëkk ci ni ñuy xame ne kii xajjam nekk na xajj mabruur mooy bu ñibbisee njub gi ay mbokkam di xam ci moom bu ñibbisee njub gi di xam ci moom comportement am doxalinam waxam yéppam ñaareel ba ci li ñuy xamee ni kii am na xajj mabruur mooy topp yàlla gi nekk ci moom topp yàlla gi nekk ci moom mbokk yi góor ñi aji woon ak jigéen ñi diirub liñ nekk màkka niñ fonki julli juróom niñ fonki julli mbooloo bu ñibbisee def ko rek am nga xajj mabruur wala am nga ca mandarga lu fajar fajar teel parce que foofa ñu ngi daan ñu ngi la noddu trois heures onze noddu gu njëkk quatre heures ñu salaatu bari na fa bokk waaye lum teel teel teel jigéen ñi wàcc góor ñi wàcc julli ci jàkk ja jul si waat ndékki dooru tëdd waaw boo ñëwee fii nooy def <laughs> ba ñu bisee fii nooy def dëkk ak jàkk ji te jàkk ji xamula dëkk ak jàkk ji te jàkk ji xamu waaw kon nag la doon defee kon moom lu mu doon ala kulli xaal ki dem màkk ba ñëw ak jaamu yàllaam ak topp yàllaam daa war a soppiku ba ñépp xam ne kii daa soppiku lu mu mën a nekk bu déggee noonu doo ko ci jàkk ji mu bàyyi mu bàyyi loola dem fekke ji julli ga ca mbooloo ma ñu xam ni kii am na xajj mabruur laysa lahu jazaa illal janna ah, ñetteel ba dooro ci nu ñuy xamee ne kii ajam gi nekk na xajj mabruur mooy an yakuna baad al xaj ahsana xaalan minhu qabla waaw ñoom soxna njinde ñoo koy jàngale noonu ci arab mooy bi mu ajee ni moo gën ba mu ajiwut na mel ni meloon bi mu ajagut bi mu ajee ko gën nii mu mel léegi moo gën na meloon hmm? waaw kay waaye dem aji màkk ba noppi mel nii mus ma aji woon makk bëggee wuñ ko noonu ko aji màkk ba ñëw dangay ngay sa sa sa xaala day gën na nga meloon sa comportement day gën lu jiitu ngay aji nga meloon ndax loolu min alaamati qabuli taa waaw boroom xam-xam yi mag ñi daanañ wax ne eh, alaamatu birril xajji an yakuna alxaj axsana xaalan minhu qabla hajjihi mag ñaa ko doon wax maanaam ku aji màkk boo ñëwee soppi ko rek sag aj baax na hmm? waaw waaw ñeenteel ba ci ñu xam ne kii ajam nekk na hajj mabruur mooy an yazi an yazdaada baadahu xayra ku baax la woon bi mu ajeegul bi mu mu gën a baax ku yiw la woon ajegut bi mu ñëwee moo gën a yiw dootul dellu ci tooñ boroomam ginnaaw bi mu ñëwee jóge ci aj ga alxasanul basri rahimahullah daana wax ne lool nag mooy alxajjul mabruur nit ko aji màkk ñëw rek ñu xam gis nga fi ne bu ñu ma boole woon ak komba per Birahim Bécaye Mbaye boole ma ak Père Birahim Komba ndeysaan combat euh, bi ma di ko waajal damay dem Amérique waaw di yenn yu diis di mbëkk ay saako di kurpañ ay saako di waajal combat bi maag maag Père Birahim <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér su combat bi ñëwee bu arbitre soufflé ma won ko la ma waajale la ma waajale woon Amérique lépp laa koy wan boo moytul mën naa koo daan kon ki jóge màkk ñibbisi na yëg ne dafa waajale woon moom tam benn combat combat combat du siècle mook mook iblis ñoo am benn combat di siècle mu demoon màkk pour préparer combat bi ndax bu ñëwee daan ko waaw bu ñëwee daan ko waaw barki dem ndeysaan bi muy bëgg a dem ma dajeeg mbër mi sant ndaw Muhammad yàlla na ko yàlla yokk wér <laughs> ma yëkkati sama mbagg ndeysaan <laughs> sama mbagg wan ko sama doole ji nu ko foo toll ci ko <laughs> foo toll ci combat bi bu ne nan ko bàyyi rek nan ko bàyyi ndax ñun naar ñëpp màggat nañu eh, na ko yàlla yokk wér waaw hmm? ndeysaan loolu noonu la yàlla mooy noonu la sunu mag ñi mooñe woon réew mi société bi pour kale yu ni demee mu am solo lool bu yàqoon ak yu bëri yàqu rekk waaye bu mu yàqu kon alxasanul basri loolu la wax nee na alxajjul mabruur daf caa bokk an yasdaada baadahu xayra wala yuaawid almaasi baada rujuihi yim daan def yu yu matadi yépp bim mu ñibbisee mu bàyyi ko loolu mooy ñeenteelu tomb ci nit ki ni muy xamee ne ajam gi nekk na xajj mabruur te alxajjul mabruur laysa lahu jaza illa aljanna juróomeel ba ci niñ koy xamee mooy bi mu dellusee ak bëgg addunaam wàññeeku bi mu ajee màkk ba ñëw ak bëgg àddunaam wàññeeku waaye aj aji màkk ba ñëw sëg bëgg adduna gën a yokku léeg-léeg ñu xam ko ci xewi ganale yi léeg-léeg aéroport sax nga koy xamee léeg-léeg bu ñuy waaj a ñëw sëg bëgg àdduna gën a yokku mu jaral la jënd robb nangam ci ci réal gu seer waaw kol gu seer nga gu tol ni gàmmuk <laughs> càlle tant ca mbedd ma waaw gaa yi laaj gala gu nabi cool na kur waaw ajaa jékki-jékki génn ay piis mu yéen waaw génn ay piis waaw maa la ko wax de daal di woyti wooy euh, fat si la fay waaw mbaa sodda waaw ngoog sodda sekk daal di jox ko chéri yi muy wàññi bi nogoye ko moom ñu sar xolle mu teg cib junni yëkkati beneen bii xaj ko moom ñu sar xolle mu teg cib junni waaye yooyu mbokk yi te kat màkk la jóge waaw xam naa na na na waa Amérique def daal jóge jóge Amérique aj si te ñibbi wala jóge Europe aj si te ñibbi mu ëpp noflaay hmm? ndax foofa amul aada yii waa ji fi ne bu ajaa ndey borsa demoon màkk jóge Sénégal dem màkk jóge màkk ñibbi si Sénégal ñu dugal ko ci aada yi te su ko defut ay bokkam mere ko yàlla nu yàlla yërëm kon ki jóge màkk ni muy xamee na ajam gi nekk ma ruur mooy ak bëgg addunaam day wàññeeku ah ak xemmem àllaaxiraam yokk lu koy may ngërëmu yàlla rekk mu ne ci lu ko koy xañ rek mu sori ko waaw waaw ndeysaan defe naa maire ba maire Fall la tuddoon maire Zeynabu Fall dëkkoon ca cité jàmmalaay ndeysaan dëkkoon ca siite jàmmalaay mu àjji makk ñëw ndeysaan gàddu ko yitu kër ga yët ma mu néew <laughs> waaw teg ci yem ca teg ne ko daal mu ngi noonu rek waaw ki aji màkk ba ñëw ak bëgg àddunaam daa war a wàññeeku xemmem àllaaxiraam yokk ujaaj yi dañoo nekk makk di ñibbisi ca ajug yaay Maodo ga maa ngi ciy bind benn téere waaw ajug yaay Maodo maa ngi ciy bind benn téere <laughs> waaw bu buñ sàccut sama ordinateur bi léegi tey mu àgg waaw <laughs> ndax téere yi mu daan bind yëpp ba ma tàmbalee ba sore rek ñu sàcc ordinateur ba juróom-ñaari ordinateur xaw juróom-ñett di sàcc rek léeg-léeg soxna Kumba Jóob jënd benn léeg-léeg euh, sëriñ du Mbacke mu bàyyi Cheikh Hadi jënd benn man yéen di xam naa danaa sonn waaye yéen da ngeen sonn waaye lu ma bind rek waaye bi yoon xëy na sàcc euh, am na diir sàcc guñu ko buñ ko sàccu léegi tey téere bi tudd ajug yaayu Maodo àgg waaye ndeysaan yaayu Maodo dañu aj ba noppi di ñibbi wajaaj yi ku ne jënd sa romb yaay Maodo jënd <laughs> ku ne jënd sa kaal ak bëxër ñett yaay Maodo jënd waaw ku jënd sa dàlli bëxër ñett yaay jënd ba dara si lu sol nag mu fàtte ko def ko ca saag bay dem ca sub ñu jël ñu jël bagage yi dara de si lu sol yaay moo doon làmb làmb làmb mu tëgg ko ticc mu wow ma ñëw <laughs> mu ne ma tuuti ko ma mën a waat ne yow mi yaa ne yàlla non ma ne ko sàllaw du bande mu ne ma ah kay parce que wóor na ma ne neexu la ndeysaan daal di xëm waaye keroog bi muy wax ci fii yaay Maodo yàlla dimbali na ko ba rab yooyu nit ñi di wàccee ko puukarewu wàccewu ko keroog mu wàcc rek wax kàddoom yi ndeysaan mu daal di fa xëm mbokk yi teg leen seen baaram <laughs> foofu ak suñu war a yëkkatee jotaay bi ñoo ngi ci tomb bu tudd ujaaj bi alaaji bi kon nu muy xamee ne ajjam gi nekk na xajj mabruur suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi di c 3 yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lahi wa barakaatu. lahi wa barakaatu. lahi